الله ربنا وقمت تدبره وأمان برادك ومن أبنك أبني عليهم برادك ومن ذاك يا أيها المدثر يا أجب كل من آمن قل جمل فأنزل قواعد ويقع موجة وقع القرآن كما وقع وقع لا يوجد شيء من زفن دانيال waxu jëmee na wax da jëm ci yàlla saaru ñaareel yii nag ci lañ toppante ne na wax da jëm ci yàlla ndigale boobu loo xam ne xamal la xamal guddoon la fekk bokkut ak ittaati ndaa yoo xam ne saxal ci li nga nekk la fekk woon fii moom defal li nga defal guddoon la comme jógal fa am jur te la waaye boobu yonent ko waa yëndu yàlla moom te kon ne na jóg waat nit ñi de waaw yéen ñu jëm ci yàlla jëm yàlla ndax ñu ci defar waaw ba sa borom sa bopp sa biir màggal ko dana la màggal sa bopp sa borom suñ la wuñu fàttal ko bokkaale aussi rafetal maanaam sa bopp tamit laabal ko te laabalal say maanaam wële soobee ci jaar yéetu dañ daa ku këleente ci maanaam ku nekk dafay def maanaam lu mu gudd di wax ci suuf di ko toog di ko di wax ci soobee si. ku ko def rek yàlla ni cuuri déw la yonent moom ñu ne ko dawara mu la laabal fay malaal mu daal di doon malaalam waaye xamale ko ci digg peer ba ñu gis ko mu gën a rafetal ñu ko ko loo ko ba léegi loolu ñu def yàlla ne ko laabalal fay malaalam te magalal sa borom malaam yi muy sol mu laabal ko ci sobe wala ci xaabu gën naa yaa loolu de nit ki am na ay malaan yu bëri malaanam xóolu yàlla yaqiin malaanam gëm yàlla malaanam bëgg yàlla malaanam dégg yi digganteem ak yàlla malaanam topp sunnat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam malaanam jébbalu nekk julit malaan yooyu yëpp na nga leen laaba ci sobe de mooy lépp nañ ko def ngir yàlla jébbalul buñ jébbalu ci kenn lu mooy ci yàlla njëbbal kenn moomu ko lu mooy yàlla doo gis ci alquran baatam aslamtu mukk mu jëm ci ku ma yàlla aslamtu lillahi rabbil alamin ibrahim dañ ko ne aslim mu ne lan aslamtu rabbil alamin bonam jëbbalu ñu ñaan sa borom te na nga laabal sa maanam gëm yàlla bul sàkkat yàlla bokkaale laabal sa maanam yaqin laabal sa maanam sopp yàlla rek waru ci sa xërëm baa jur tongu ko rek xërëm yi muy màkk di jaamu yow nañ ko tongu rek maanaam faxal ci tongoo ne moom na ko juddu xërëm la gën a bari jaati waaye tong nga tongu xërëm sopp bi rek wala tongum bu xëyee daf sax xërëm nit moom nit moom da nga bëri lu bul may nit lu tuuti ngir bëgg mu maye lu bëri mooy mbir yi yoo xam ne soo bëggee ñaay nit réew dara ñoo jox ko ko jëndal ñu may la lu bëri. kii nañ ko ci kër gi yeneen ko. am na yeneen ko moom wala am na ci moom. léegi ñu ngi koy ñu ngi xamal fële xalaat rek bés bu ñu war a gis ko. te gis ko ba dëndal la loo xam ne yàlla ko bindee seen bindee yëpp bindee mu nekk kon danañ ko wax am na. solo solo bés bi yàlla bëgg ci kalaat na ñoom Ibrahim ma nga ko ma nga ma nga ma nga bu ko rek jëlu ndigal te duñ ko ne wala mu war ñëpp di yàndoo duñ ko ne wala yoon ñaareel mu war ñëpp dëkk daal di jox duñ ko ne yàlla ba daal di ko wala wax ñu ñu war di sëfa yow ma isin de fekk yow yow ñu defe asirum bu daal jafaar te fi nga yedd na ay yëkkil lu ma jàppale bés bi ñu waree gis nga defar keroog dana nekk bëccëg boo xam ne lu jafe lay doon suñu doole te du jàppale ci moom rek saa suñ la. gis ngeen yàlla bëree doole ak xam-xam te dundee lu mel ni nit. danga fi bëri ko nit ñi la gàññi. te am doole yi ñu ne dégg loo ci biir rek nopp du dara lu may aw ñu la gis loo ci morso gërës rek mooy bët bi ñu la wax loo ci kaw ay nit dundee di bëri. ak li ñuy wax di lépp bés bu yàlla bëggee jeexal àdduna daan na jaamam lay digal rek mu ne ëpp ñu yor mu ne sa sa leer foofu rek ñëpp dee àndoo. bés bu wala bu te wóobu nag ba ñëpp dee ñu wala di ko ñëpp dekki bés boo xam ne bés bu jaxee doon te yéen fële te du jàppal ci ñoom rek. kon ni yow man xalaat ku wax di gan foofu la ci wala mu ma farata dafa déglu yeneen te mu jàng alxuraan mu daal di jàng jëm ci gëm yàlla mu ne wax bii ma dégg di Muhammad su waxi nit bu waxi jinne wax yàlla mu dégg rek la mën a doon wax bi am na ay ren ci suuf te xam nañ tam ak taar ak nañ la te wax bii ma dégg mooy féete kaw waaye duñ ko féete kaw bukk daal di bëgg a gëm su ko bay ba mu defee loolu mu dogul ba mu defee loolu mu dogul jotaay xolli si yëpp toog ci këram demati ci ñoom doogu ci rajo dafay dafay jébbal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Quraysh ne ay am na wali jàng na su wali jàngee Quraysh yëpp dana jàng Abu Jahl ne man maa leen koy tegal de daal di ñëw këram ne ko dégg nga ni Quraysh di waxtaaneem mu ne lan mu ne ñoom ñëpp nañ léegi dafay xaaraan yi kat Muhammad mu ne Muhammad miskin lu ma am dama di ko xaaraan xaaraan ma ko ne ma mu tuut li am daal mooy dégg naa ci moom wax joo xam ne du waxi nit du waxi jinne du du way mukk du rajas du ajas maa ci dàqa way du waxi mukk du waxi ci jinne la mu ne ko Muhammad dafa ko mu ne ko Muhammad lépp léegi léegi ñu wax naar te mu ne yàlla ko yónni ku juddee am nañu fukki at mosul naa nekk lu yenn fenn kuy bañ a feneen bañ a feneen ñu ne nii ku feeñal du feneen mukk yàlla ñu ne nii Muhammad du fen mu ne ko dina ko jàpp mu ne ko Muhammad dina jàpp ko Buxaara la mu ne ko Muhammad du li ñuy wax du Buxaara ñu yëpp maa leen ko gën a xam daara ñu ñëpp duñ ci dara ñu ne ko léegi nag waxal gëm ko ñu xool ñu la doon doon dootuñ man wala loolu di ko ànd ak ñun mu ne su ma ko weesoo lu may laaj Abu Jahl ñu ko jox ma téeméeri jërëm rek la nga wax dana am di bàkkaar man maa koy gàddu ka nga weesu mu nangu yokk ko ci jërëm te ñu fam ñu ci téeméeram lan keneen du ko jox la jërëm ñun amee suñ defar la rek yoo xam ne dafay jeexital di ko saara nit ak ci boppam di ko saare doomam wala gisam rek waaye su dara bi leen delloo ak ci kéefaram gannaaw ñu xamee dëgg moom la boo di wax ne zarni bayima man yàlla waman xalaqtu ak sama bind waaye dem mbir mi may aju yéet bari naa koo xam ne man yàlla maa ko bind te kenn bind loolu ma wala waman xalaqtu ak sama bind waaye dem luy aju yéet ci xaral ak bi am njaboot bindoon naa ko mu juddu amul tuut gannaaw dama jox xaral bi di jeex wala zarni bayima waman xalaqtu sama bind wax yi ren nit ñaa jugee ko jamono yoo xam ne bind naa ko yëpp ci ko jox ko xarala ci doom waaye jox ko daraja ba ñu di ko wax wax yi nga ne mooy ko jamonoom léegi nag mooy wàññi ñu mu xarata léegi ñu daw wala aw ba dina weddi waccu maa moom de wa jaam sama dem loolu ñu ne ko maaral ci man doon guri aji yaa yàlla jox ko xaral joo xam ne digga amoon na juróom benn junni junni bi door wala juróom-ñeenti junne junne bi door ak juróom-ñeenti junne ci misaal yooyu amoon na fukki jaam ak juróom-ñett yoo xam ne ku ci nekk raxasumaale yoon junne la mu di ko yaxante ñoo ko di jëkkër moo ko moom mu am ci doomu góor fukk fukki doomu góor yoo xam ne yëpp moo leen di fay mu way ci la bokk fukki doomu yi ñett rek ci jëbbalu ñu tere yëpp yëppal lañ nekk moom wajan dama leen lool ñoo ko maa leen jublu lool ngir aji yaa wa bàyyi naa doomi góor yi fukk soo dañuy di way teew ko moom ma may ko fukki doomi góor yoo xam ne bu jëkkee ñu jëkkee ko wa maa ci sama tàllal lool ñoo ko ci ab dund ak fan ak doom tamit dan ak tàllal ma yaaran ko jox ko dund ko yaa jox ko fan yu gudd jox ko doom yu bari su ma def ma topp muy yaakaar am asida bu ma dollee ko gannaaw ba ni muy yaakaar ni man yàlla damaa ko dolli kan laa dolli ci ma ko def ba kan laa wàccee bés yi ñu nekk bu ko doole ci ci wërsëgam bés bu ko yàlla mu dollee ko mu dollee ko rek boobu mu réer nit ki na ñu néewoon na ko moom daanu nekkoon nañu am nañu dem di aji dëng am nañu dem di aji dëngante di aar naa jaaw trois jours rek. foofu xam na maa togg ko sama gan ak nit te aw gan wacc safara rek yàlla na ne walit moomu danaa ko yëndoo ci aw gan mu nekk ci jaanam rek aw gan la woo xam ne dañu safara la mu gën a tàng safara suñ ko nii ci bu talalee loxoom bëgg a teg ca doj wa rek loxo ba tey ba ca saxu ba waa ngi tàngaayu doj wa de te dana ci xeex lu tax yàlla teg ko mbugal mu ci moomu nag innahu naka moom fat kala xalam na mu ci lu muy wax ci alxuraan ba mu xamee ne alxuraan dëgg la ba noppi lu weddi loo ko mu bëgg a weddi moom moo xalamal boppam ne lan lay wax ci mbiram yonent bi waxat dara tam dogal mbiram boppam mu dogalal boppam la ko neex ko ci la ko rabbi ko kay fa xaddara naka mu dogale mbiram boppam rek mokk ci la topp yàlla na rabbi ko kay fa xaddara naka mu dogale mbiram boppam su mën a dara topp mu seer ci xar kanam ñi def xar kanam ñi def ña ak la nga xam ne moom lañ koy ayibale toppee yonent bi ëllëg ñu wax ba sa topp mu ñëkkal kanam mu ñëkkal kanam wa basara tam doon lay ñëkkal kanam ima ak bara topp mu dëdd wani gëm wa fat bara tam doylu bañ a topp yonent ba fa xaala tam wax ginaar saa di dile ilaa seerun dara njabar la ñu soo ko jeex na taxal ko jëlee fa jabaree de mu ne alquran bi du dara lu may ak njabar ginaar saa di dile ilaa xawul basari dara waxi doomu aadama de daw buur ne daw see xam na maa xarfe ko saqara saqar man yàlla danaa ko dugal ci saqara te ñuy tudde saqar wa maa adraaka an lu xawal la sax ma saqar lu saqar ma la la xamal ba saqar yow yonent bi ngir màggal mbiram laa tukki defal bi mu dara wala tasaru bay bi mu dara safara la woo xam ne dafay lakk lépp ci jaam ba muy yàqu wa muy sa diine muy yàq ba lépp lay lakk ba du ca bay dara rek te su ko lakkee ba mu jeex mu dellu saxaat ba mel na meloon rek waaw ñu dellu ko lakkati de noonu la dëkkee la waatum ñore aatoon la mu lil bësëri ci yaru yaram de waaw boo amee sañu nañ ci jaam ba rek yaramam dal di sumeeku de lépp waaw ala ñu nekk rek moom te sa sans rek ñoom ñu naan te tuuti te am na fukki bëgg ne ak juróom-ñeent yoo xam ne ñoo gën a dëgër ci lu yàlla bind. abo jaar muy daan dañ ne kaay leen déglu jéem daan nag moo mat ne safara fi mu leen di tëggoo fukk ak juróom-ñeent rek laa am ñu koy wattu xanaa yéen presse yëpp lu ngeen nasax nasax nasax war a mën a xeex ak fukki ñaar juróom-ñaar ñu ne waaw mu ne. mu ne xanaa war ngeen a mën a xeex ak ñaar ña rek ñu ne waaw mu ne man mën naa xeex ak fukk ak juróom-ñaar man kenn daal fukk ñaar juróom-ñaar wóor na ma ne maa leen man yéen nag bëri leen ba tey ma ñaar ña rek ah ñu ne ko ba mu ne fukk ñaar juróom-ñaar ñii tam ñaar ña daañu leen mën a sakkal pexe mu ne bon ak leen lu leen neex ngeen am bu leen dugal safara ba kër yi safara ñoo leen man. buur ne wama jaal naa defunu asaaba naari wara bi safara ilaa malaaykat na rey malaaykat yi waxuma fukki nit ak juróom-ñeent bi fukki malaaka ak juróom-ñeent laa waxuma nit malaaka laa la duut la ngeen defe menn malaaka rek mbëggam malaaka rek mën naa tas àddina yëpp yenn xaajug malaaka rek mën naa tas àddina yëpp kon nag fukki malaaka ak juróom-ñeent ana fu ngeen jëm ak ñooñu wama jaar naa sa defunu sax eddatam lim seen illaa fitnatam la rek réeral li la seen ñaane ko fa rek nañu le te soo gisee lim boobu yàlla tudd ko sax xamoon na li ngay bëri wax dana xam ne danañ wax ne boobu lim tuuti na waaw bañ réer ci liy sax dana ngir na wóorul na dina ñaanal ëpp ci taw ñoo xam ne dañ téere te it dana tax yow doolee gëm ndax tawreet ci bu tëjee juróom ñaan la jàngatoon ne moom la safara am bu alquran yi yow wax ne dëppoo la nekkoon ci tawreet nag ñoom danañ doolee gëm wala daara sa doolee ku ne dina ñaanal amaloo gëm nit ñi maanaam la gëm su ko defee jullit ñi doolee gëm buñ xamee ne li nga doon déglu dikkee dëppoo naa la tey jëkkee waxoon te moom mos na jàng benn téere wala yaa saaba ci këtul la si ne yaa ngi ut ci saaba joxe benn téere loolu boobu danaa koy gëm ñu ne duñ duñ lim duñ duñ sikk ndax lim boobu moom la téere jëkkee waxoon moom laa ko waxee te wax wala yaa ko waxee ngir na wax la si ne ñaan na te ko loolu ñu aj nekk rek ñu xor seen ma doon sikk ma doon naa fekk wala kaasu naa koy weddi ña naa ko arada laa woo gën na ma yàlla te xaaral ci dem masalañ ci lépp de yéefari naa fekk yi nag ñoom daañu wax ne fukki bëkk ne ak juróom-ñeent rek lañu mën a te saalika cam googu léegi rek ci xamalan lim boobu. alhamdulilah léegi rek la yàlla mañ a taal ku mu soob waya yi tamul jubal ma yasaaru ku mu soble waaye wa ma yaalam xamut junoo dara bi ka léegi borom sa illaa wa dara moom de waaye su fekkee dëgg la fukk ak juróom ñenant ñi ñooy njiit ya rek ñooy seef ya ku ci ne nag dafa am ay soldat yu mu jeex yoo xam ne seen ab lim waxuma waaw seen ab lim appuut yàlla rek a xam seen ab lim seen doole appuut yàlla rek a xam la ñu am ci doole kon nag Abu Jahl mu ca mën a xeex ak fukk ak juróom ñaar la mu waxoon wa maa yéedeen moom saqar la fikra nda rek waar la lil basari ñeel doomu aadama rek saqar safara soosu yàlla tuddoon ak waar la ñeel képp kuy nit de kalla dëgg wal xamari géñe na ma weer ngéñe ngoo dikk na ci digg saadu walla yi géñe na ma guddi isaa ba ba mu suuxee maa ngi génn ci weer wi maa ngi génn ci guddi génn ci jëf yàlla ko jagoo moom sañ naa génn ci jëfam ndax ay kaafeefam la waaye mbindee sañ la génn lu moy ci yàlla su dee nit nag moom buy génn na génn ci yàlla rek wala mu bàyyi waxtu bi géñe na ma suba yi daa sara ba mu leeree inaa anaka moom faqar bii ma tuddoon yi rek ku bëri kenn ci musiba yu mag yi la rek su fekkee dëggee dëgg man yàlla géñ naa ci weer guddi gi géñ naa ci suba ba bët setee faqar moomu ma tudd ci musiba yi gën a mag yi yàlla sàkk la bopp rek yàlla ci yàlla musal nasiiram li mu di ko waat yéen dafa nañ ñaan dama adama mu di leen waat li man saa ñaan ko soxna mun kum ci yéen an ya taqaddama bu mu jiitoo jëm ci aljanna aw ya taakara di ke mu yéex ba jëm safara de kulu nafsin bépp bakkan rahinatum luñ taale law lu maa kasabat ca law fàggu bakkan bu nekk dañ ko fay jëfam ñoom ñëw la ndem ayra ba mel ni taye illaa asxaabal yamini lare waroon la joor ñoom way nit lañ ci jannaatin way nekk lañ ci aljanna yeta saaroona ngir moom danañu laajante seen diggante ani mu jiri na cooy bakkaar ña de ñoom ñu aljanna ñoom nit lañ ci mbooleem ci yooyu ñu doon tudd ña nga nekk ña aljanna joo xam ne ñawee laajante seen diggante moo xéefal yi ñun mujjee luy seen mbir ci luñ nekk ba nga xamee ne yóob nañ ñooñ safara nag gis leen seen digg safara ña nga leen di laaj laajat ndokk ndokk noonu foofu rek la jote ne leen martalatakum ana lu xarfenam ren di saqara ji saqar waay moo yéen na ngeen sàggane ba dem safara waay xaaral ñu ne lan nag ku nekk nu ñoom musallina ci way julli ñi ñu ne dañ daawut julli de benn wala nakku nekku noonu mos na mu di deeral nit dina miskin daawuñu sarax miskin de bokku naa nekkoon nanu naxuutu di xuus ci suñu baatin maal xaaraay dina ànd ak mu ne xuus ña bokku naa nekkoon nañu mu sëddi mu di weddi di yóbbu ci ñu jëlee sa fay ba yooyu yëpp daa nañ ko def di weddi péncël yàlla ne dekk amuñu saaramo ata ata na ba ci sanu aja yu dee loolu lañu loolu la gëyee ba dee di tere lan ka julli lan ka tabaxe bana bi di wax ne dee amul dëkk amul ci saa amul moo tax buur ne ba maa xam saa amul moo tax jëriñ ci leen te saa su saa fi gën a ram wéram ñu la moo tax yonent leen malaayika yi saa yi ne danañ ram ca penc pencam yàlla waaye ña gëmoon yàlla rek la ñuy ram waaye ñi ñoom ram ma daal ci ñoom de ba maa lawum ana law ñoom an moo rek di nañu di way dëgg ani dëgg rek way sa waa lu tax ñu dëgg bañ a dëgg waa de alxuraan yi daa ñoom daanaka ñoom suñu ay mbaam lañu mustan faratuñ ñu di way jaayeelu faral yooyu daw nañu ñun xasoo rek ñun xasoo rek ci gaynde de ñu jow ñoom mbaam yu jaayeelu yoo xam ne dañoo seen gaynde di ko daw buñu leen di waat buñu dégg yaa ñuy jàng alxuraan noonu lañ koy sofee parce que yéni du dana namoo su lum biin gépp ñu mënum ci ñoom anu kaa bu joxe far ko su téere mu na sarat dañu ñu defar ab boo jaali ñuy xam ne ñun duñ mën a gëm yàlla lu may ñu wàccee téere ci Muhammad kenn kenn ci ñun ku nekk mu yónnee ko téere ñun ay kilifa lañ yàlla nañu bind dama bind gàttal wax ma ne lii laa bëgg na bind wax ba tey ba tey wari abol bosore wari mu ma mu xeerata waaw ku nekk mu bind ko bu fekkee mu yónni Muhammad mu wax ne mooy mooy moo yónni Muhammad yàlla ne kan laa def ci ma loolu de ku nekk ci ñoom ma yónnee ko daal def ci naa def ma loolu de la ne yónni laa tànn moom laa yónni sama leetar de bal day laa xaafoon a ragal ñu laakara ba alaakara ñoom dañoo ragal rem bu gëlëm alaakara kàllaa dëgg dina woon ak moom alquran te te su ma ko waata sama saa ko xam ne mu bakara woon mu waatoo ko ba maa ko kuroon na waaye su leen ilaa yasa laaw ndara bu soxna yàlla fi yàlla ko waatu woo moom ahlu taqwa mooy yeew ji ragal yàlla yeew na ñu ragal ko waa ahlu maqrati mooy yeew ji mbay itam de te yow nag day jaam yi ragal ko di ko topp bañ ko mooy waaye moom itam te yow nag mu baal leen de